dimbali nit yàlla dimbali nit xam ne lumière da ngay xëy dee ba ok li tax jeunes yi dem gars yi nekk ci gouvernement bi nañ dimbali nit ñi. milliards yi ñu jël denc ko. ñu génne ko teg sur la table. xool lu ñuy def pour que boy yi mën toog au moins am ci lu ñu jàpp. waaye kenn ku si nekk xëcc ay milliards denc sa poos teg sa poos di naan ay gaal yi day métti tamit. waaw benn kër cinq oto benn heure kër ak oto. oto mindaan sax day am mais nañ teg loolu de côté génnee milliards yi. dimbali nit ñi ngir yàlla dimbali nit ñi te xam ne milliard da ngay xëy dee ba of loo gën a denc milliards yi di la gën a naan au revoir génneen milliards yi ngeen teg ko booy yi liggéey milliards yi da ngay dee ba ko fi dem layoog borom bi jaru ko ay milliards yoo jël jël lu mat quinze millions personnes nga amel leen ak ëllëg yoomal xiyaam ñu taxaw di la laaj musiba la ay milliards jaru ko yoo xam ne mënoo ko lekk dimbali leen milliards ngeen teg ko comme def ni booy bi ñu muy def booy Gris di génnee ngooñ di dimbali gars yi dimbali gars yi. di génnee ngooñ di génnee dimbali gars yi et pourtant et pourtant dimbali nit ñi di génnee xaalis di di yóbbu Sénégal di yóbbu ay oto yëpp di jaay mais mu ngi def mu ngi jund ne te pourtant nekkul ci gouvernement bi yorul ay milliards. très bien li may ñaan daal mooy. nañu dimbali ngir yàlla jeunes yi génnee xaalis bi teg ko ci la table <laughs> ku nekk génnee un milliard sax. <laughs> waaye jël milliards yëpp tey. tibb leen tibb leen waaye waaye waaye jox leen. nit ñi tuuti asalaamaaleykum jaajëf. Malick Malick loo ciy tànn loo ciy sànni. waaw grand <laughs> tibb leen kenn waxu leen bu leen tibb waaye nag. doole rek comme si grand bi <laughs> dañoo nekk dëkk boo xam ni. dëgg la. dafa bëri ay jeunes Sénégal. dëgg la jeune boo mën a jël. Mhm. njëkk a dimbali samay waajur. dëgg la moo tax tey ñu jël gaal geeg yooyu. waaw mais jaru ko. xam nga loo jaru ko. Uh-huh. Mhm. gars yi dañ leen di won ci dëkk bi fii. waaw lu bari loo xam ni féeg la. dëgg la. gis nga fii li fi am. lii la ah. il faut nga ñëw ñafe mais lii yow yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax macha allah grand ah. ah. Griff mii du ma bàyyi ma wax lu dul dëgg waaw yenn yi day taw wala dara mu woo ma non tey bu lakk ma ne ko saa yi mu ne ma ne ko damay lakk waaw waaw yi lii ma ne ko mhm. su ma ci gisul woon sama bopp du ma lakk très bien très bien tey loo dem ba mën si di dimbali nit mën si ku sa bopp rek

du question ko yëkkati xaalis ay jàppale nit wala dara. ok di ñaan suñu borom mi nga xam ne dara teew ko. waaw képp ku bëgg a ñëw fii yàlla na la yàlla suturaal ba nga ñëw. waaw dëkku jàmm la de yàlla dimbali ba nga ñëw. dëkk xewal la ay métti naag ay métti yooyu yëpp taxawul. <laughs> ñëw leen ñëw ku mën a ñëw daal na nga ñëw nga def ni kii. bàyyi leen gaynde gi. waaye bàyyi leen gaal yi xoolal kii xoolal ku yàlla bëgg ku ku bëgg a ñëw yàlla na la suñu borom andi. mais bu leen dugg ci gaal yi nga wax dëgg yàlla ok kooku moom jeune bi bu ñu ko mënee teg. de côté ñu teg ko de côté quoi. ok sa xale yi jom quoi ngir yàlla dimbali nit ñi te xam ne lu yaar da ngay xëy dee ba ko fi nañu dimbali ngir yàlla jeunes yi génnee xaalis bi teg ko ci la table ku nekk génnee un milliard sax waaye jël milliard yëpp tey. tibb leen tibb leen waaye waaye waaye jox leen nit ñi tuuti asalaamaaleykum. jaajëf laaj bu laaj bu mel ni mosu fi am lu xew. nga incha allah yàlla na la ko mën. boo mënee lett. waaw boo mënee lett bu baax. waaw nga ñëw. bu la neexee nga ñëw. waaw nga jógee sax si yeneen état yi nga ñëw fi. waaw waaw très bien. non dinañ dox numéro téléphone bi. waaw après nga ah, jóg numéro la. ay ndey yi ay ndey yi seex lañu. très bien xam nga ñëppay ñëw pour liggéey ñëppay ñëw pour jàpp. waaw xam nga loolu loolu la ñuy séntu si ay togolais ak ak guinéen ak nigérien ak ñëpp amul kenn ku bëgg liggéey te correcté woo te doo liggéey fii ah mooy ah ok di di nag di def si di def ci diine bi ah aussi ah, ah. ah lépp ñu lañ siy jàpp cinq ans ah. waaye tey gàcce ngaalaama ndax tey lu yaayam bëgg de taxaw li papam bëgg taxaw mu taxaw si li ay famille bëgg mu taxaw si. waaw xaar ma def ni yàpp bi gën a feeñ. xam nga ñi bëgg ñi bëgg dibi ñëpp fi la ñuy ñëw commandé dibi di jënd. waaw instant yi de nice waaw instant yi moom mu ngi jënd normal waaw kay. gars yi nag li mu leen di wax mooy dee leen di partagé euh, dee leen like parce que tamit ñun nii lañ mën a def di leen indil xibaar yi waaw dee leen ñu partagé dee leen partagé dee leen like. billahi Macky Sall tey rek mu xam ne am na problème man Sonko laa ba 2024 gisuma lu may jëlee ci Sonko